bépp sénégalais ku nekk fi biir Sénégal wala si biir diaspora xam na problème Tivaouane Peulh depuis 2017 ñu koy dund ba fi ñuy wax ak yenn nii ñu ngi koy dund waaye ñu ngi sant yàlla mais aussi di ñaanal suñu mbokk yi nga xam ñoo génn àdduna yàlla yërëm leen ndax ñu bëri génn àdduna mbool suñu taxawaay fii leen rek la euh, dañoo xeex ba yàlla dogal ñu am suñu autorisation de lotir ñu joxuñu ko mu lew ñu dong Abdoulaye Seydou Sow si boppam ak ñu mu lëkkaloo mu bind ne da koy retiré ginnaaw bu mu bindee bindam ne da koy retiré sans motif yàlla dogal réew moom gëm naa ne réew yoon la loolu moo tax jëlaay avocat topp ko ci yoon bi ñu ko toppee si yoon yoonu atte ne carrément le ministre dellool waa collectif Tivaouane Peulh seen autorisation de lotir kon yaakaar naa ne foofu wax ci war na mun a jeex war nañ mën a bañ a egsi fii ñu egsi ba def ay point de presse di déplacer lu ay mag ñëw taxaw si naaj bu tàng bii waru ko jar parce que justice bu dee mbir dem na ba dem ci wàllum yoon ba yoonu atte wax lii la yaakaar naa ne kenn warul am makkaama bay téyewaat dossier boobu bu fekkente ni réew mu normal la kon Abdoulaye Seydou Sow moom la ñuy waxal directement waxuñu ak kenn ginnaaw bi président waxee ba ñu daggal ñu fi 20 hectares fii ñu taxaw nii ñun ñu xam lu ñu war xam ne suuf balaa valable il faut mu am ay papier papier yooyu nag ñu topp leen fu ñu leen war a toppee fi ñu war a jaar jaar nañ fa ba am nañ suñu ay papier Ablaye Seydou Sow nañu delloo suñu autorisation de lotir parce que yaakaar na lu mooy yoon bu ñu ko delloon nag lawoon fawoon rek ñun ay Sénégal lañu sàccuñu fennuñu te jëluñu alal jàmbur agressé wuñu kenn waaye bëgguñu tamit réew mi di am fitna bu ñu sañoon réew mi day dal day ànd ak dal ndax réew mi dal mooy suñu jàmba ñun ñëpp ku ñaanal réew mi na ko ñaanal mu dal ndax mu dalul doo am jàmm kon Abdoulaye Seydou Sow na bëgg jàmm nañu delloo suñu autorisation de lotir ñu ngi koy dégg nag si ay situation yu bëree bëree bëree bëri waaye dañ ñaan yàlla si loolu ñu koy dégg mu bañ a doon mu bañ a concerné fii ñu taxaw ndax bu concerné fii ñu taxaw dana am lu leer nañ loo xamante ne ko leer ne ñun ay Sénégal lañu ni moom yàllaa dogal mu nekk ministre te ministre nomination dong la man mii taxaw fii mun naa doon ministre ëllëg kon na doxal yoon te xam ne yoon a fi ne dañuy dolli suñu autorisation de lotir dégg nañ nag mu ngi lëkkaloo kay ay promoteur di koy dëgg ay 500 milliards ay 500 millions nag mais Abdoulaye Seydou Sow la ngay lëkkaloo na bañ a doon suufu Tivaouane Peulh 20 hectares bu victime Tivaouane Peulh yi ndax mooy sa jàmm te mooy jàmm réew mi ñun bu ñu amee ku ñu woo fii ñu taxaw nii kenn rek la ñuy woo mooy président Macky Sall ndax Macky Sall moom la ñu fal Abdoulaye Seydou Sow ñun faluñu ko Macky Sall la ñu fal moo xool ko ko doy mu fal ko si ministère bu ko doy kon monsieur Macky Sall li ñu joxee fii ñu taxaw nii papier yi ñu atte ko kon Abdoulaye Sylla Sow jox suñu autorisation de lotir loolu mooy suñu wax wax ji mun na bañ a gudd ndax naaj bi dafa tàng Abdoulaye Sylla Sow jox suñu autorisation de lotir mooy jàmmam te mooy jàmm réew mi mooy jàmmam mooy jàmm réew mi ñu ngi sàkku jàmm si réew mi nag waaye ku bëggul jàmm di ko indi si biir victime Tivaouane Peulh dana la weexat ndax ñu duñ de avance kenn loolu moo nekk suñu wax jaru ñuy guddal. Euh, euh, voilà Macky Sall lay dem wax na day dem. te yoon moo wax ne dafa war a dem loolu yaakaar na ñun ñëpp xam nañ ko te ndax ay sénégalais lañu lu yoon wax defe naa ñun ñëpp en tant que sénégalais war nañu ko appliquer. parce que yoon ñaar la ko may ñaaram mat na dañ koy ñaan yàlla suñu borom mu dem si jàmm ak salaam képp ku képp ku jël réew mi yàlla doon ku jig réew mi foofu la ñuy commencé d' abord. donc ñi ko war a wuutu candidat yi surtout moom candidat mi nga xamante ne moom tànn na ko ci waa Bennoo Bokk Yaakaar ki nga xamante moom mooy Amadou Ba defe naa moom la tànn comme ñun bu ñuy talal loxo boo talal loxo président Macky Sall yaa ngi talal loxo ki nga xam ne mooy candidat war nañu recevoir en tant que ay sénégalais ñu xam suñu mbébét lan la dossier bi nag mosuñu ko politiser nag waaye bu wax jotee dañ koy wax ku ñu war a jaakaar yoo xam ne cii mën a régler suñu problème ñu ànd ak yow nga régler suñu problème ñun musuñu woote beneen candidat boo nekkul bon Benno Bokk Yaakaar yàlla rek laa jël seede les preuves la preuve est là ma kii comme adresse le maire de Tivaouane bu mu soxlaa mairie bi encore fii la ñëw taxaw lu ne ma wax ko ma jël mbooloom yëpp mille quatre-vingt-seize personnes ñu jàppale ko ba mu faluwaat waaye lu mu lu mu jëfee ak lu mu wax dafa woroo dafa woroo il est temps moom Papis Diop ma dénoncé ko fii ma toog nii ndax toog na si benn télé Tivaouane Peulh ne victimes yi ñoo bëggul am suuf parce que président dafa nañ dem nañ dem Lac-Rose ñu bàyyi fii ñoom ñoo bañ Papis boo ko waxee waxul dëgg Papis Diop waxoo dëgg te télé ba nga toog di ko wax télé boo baa ngi fi taxaw bëgg naa nga gis émission Papis Diop man Sadio Sane en tant que président du collectif maa la défier décision yaa ngi nii ñu am suñu papier yu leer lépp ñu war a nañ ko kon foofu laa doon tëjee Papis Diop wax te du ko laal il faut ma joxoñ ko baaram tuuma Papis Diop na bàyyi muy def en tant que maire bu normal waru doxalee nii moom mooy premier magistrat de la commune Tivaouane Peulh nag nañu manko doon benn ñu manko doon benn Papis Diop dana war suñu kaw ñëpp ndax filaaw yi koy dagg Tivaouane Peulh am ci benn intérêt te Tivaouane Peulh war nañ ci am intérêt lu tax loolu te ñun dañoo bokk ci biir Tivaouane Peulh kon ñun waat ñun waa Tivaouane Peulh ñu manko doon benn te joxante loxo ñu xeexandoo lii si le Papis Diop nañ jaay ñun ñëpp mu nekk ko def ko ci poosam sonn nañu trop fu taxaw nañ fa télé yoo télé taxaw nañ man damaa dem ba bëggatuma tax feeñ télé di jaay sama jus euh, glacière baa ngi nii glace jus laay jaay di yënu sama glacière bi sama mbokk jigéen yaa ngi nii di ci def participation nag di jënd sama jus bii ba ma tabax sama kër gee ba desul dara ndax kuulaas dëkk ñu tojal ma ko te ñun ñëpp dañuy loué suñu doom yaa ngi nii kañ si ñoom jàngatul xale yi dañuy taxawaal taxawaalu ñu ndax ku leen di fayal école publique yi boo demee boo amul fourniture dañ lay dàq toj bi metti na Macky Sall ñu ngi lay tàllal loxo Abdoulaye Seydou Sow ñu delloo suñu autorisation de lotir ngir yàlla fu mu neexee mii damaa damaa xaw a jaxasoo ndax bëggatuma tax sa feeñ ci télé bi parce que dañoo sonn sonn nañu trop Amadou Ba ñu ngi lay tàllal loxo ngir yàlla ñu ngi lay tàllal loxo Papis Diop daf ñuy utiliser suñu utiliser ba pare rek pareetu pare na si ñun lijjanteetuñu Papis Diop moom lu dul yàqal ñu taxawul taxawul pour jàppale ñu parce que boo xoolee Papis Diop promoteur la je pèse bien mes mots Papis Diop promoteur la lu su amoon lu ko gënal tey fii dañ fiy joge Papis Diop moo ci paie bokk na si ñu ñu xañ fii moom Papis Diop suñu bàyyi woon ak ministre bi kese ak euh, Macky Sall Macky Sall dañoo jox ni te yàlla rek tax ba ñu yore suñu autorisation de lotir mais moom moo diggee woon kay moo ñu woowoon ñu ñëw moo ñu waroon a woowaat ñu wuyu si wala boog mais moom bu mu faloo keroog la keroog la ñu fàtte lu dul di dugg si si biir tala yi di ñu wili pande di ñu waxal loo xamante ni du dëgg te waaye ñu sonn nañ trop nañu Macky Sall taxaw wa Amadou Ba nañu recevoir ñun soxla nañ ko kes trop. sonn nañu ba fu sonn yem saa bu ñu yaakaaree rek suñu yaakaar tas comme li Marie wax léegi ci Papis Diop Papis Diop moom daf ñoo utiliser bi ñuy waaj élection maire yi daf ñoo woo nañu Macky Sall la leen jox léegi nag dañoo bëgg ngeen dajale jigéen ñi dajale ñëpp ñu ñëw ñu waxtaan su ko defee su ma faluwaatee dina gën a yombal seen mbir na xam naa seen dossier num fu mu toll ñu ne ko waaw ñu dajaloo fii ku nekk fu waaw fa nga dëkk ñu woo la nga ñëw fii wut sa kayitu carte d'identité ak sa lépp ñu ñu miite wu fii Tivaouane ba ba ko bafalaat ko du ñu ne ñoo ko fal mais bokk nañ ci 20 pour cent yi ko fal ndax collectif bi ñëpp gen wàll dañoo demoon ba bu ñu ñëwee di bindu sax dañuy dem ñoom ñii ñuy recevoir dañuy euh, bind ba ne dañoo sonn wàcc nañu. lépp rek pour bëggoon am ndam yaakaaru amoon yaakaar ci moom ak wax jum ñu waxoon lam ñu waxoon lépp nag mu dindi ko ba mu set wicc ba mu faloo ba tey dégguñ dégguñu te moom ba mu warut woon a ñun ñu di ko woo bam ñu soxlaa moom moo ñu woowoon kon ba mu demee nag ba ba falu daf ñoo waroon a woowaat mais defut loolu ñun nag ñu ngi koy ñu ngi koy lancé appel parce que mooy mooy suñu maire man yàqalagun nañam ñaar ndax njëkkoon naa tabax fii ba ba waaj a kule samay birig ak yëpp fee laa fee laa dëkkoon fee ñu commencement jumaay ji sama kër tabaxoon naa ko ba doon waaj a kule ñu ñëw toj ko bi ñu ko tojee ñu topp ci jour boobu bu ministre bi ñëwoon euh, bi jóge woon sangal euh, Sangalkam su déggee ma dina xam lu muy wax booba la sama jëkkër doog a gaañu daanul maa daanu woon ci kàmb ga mu ne ñu waaw léegi Macky Sall la koy yebal mu ñëw fii def ba mu ne nii Macky Sall moom amuñu luñ koy wax lu dul jaraaboot ndax lu mu bon bon def na loxoom ci dara waaw ndax de fexe na ba ne nañ ñu delloo euh, kii nu mu tuddati euh, keneen ki ki nga xam ne moo yoroon euh, domaine moom tamit jàppoon na ci. ah Aly Ngouille Ndiaye ñëw na fi mais keneen ki laay wax sax ki yor domaine ki yore woon suñu këyit bi jàpp na ci ba suñu këyit yi dem fi mu ne nii nag suñu euh, kii de lotir bi ñu bi ñu biñ autorisation de lotir biñ ñu jox nangu ko boobu rek la ñuy la ñuy la ñuy lijjanti parce que fi mu ne nii boobu moo ñu ñor ak suñu impasse nañ ñu dimbali nag ay jigéen lañu ay jaboot lañu te dañoo daw ba sonn li ñu amoon yëpp ñu def ko fii ci Tivaouane Peulh ba ñu delloo ñu ko ñu jëlaat ko nar koo nangu Macky nag ñu ngi lay ñaan balaa ngay dem sa ministre yi na nga wax ak ñoom ndax ñu ngi sa ginnaaw kat ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw ëllëg te ñun ñii nag ay ay ay militant lañu fa ñu nekk fa ñu dëkk gox ba ñu dëkk ñun ñëpp ay responsable lañ fa dañoo boot suñu ginnaaw ñu bari ñëwaat fii boot kon nag nañ ñu jàppale